tey sunu jataay bii defe naa ne même bu ñu waxul woon sax bu ñu ñëwoon rek pour la photo de famille ñu ñëw taxaw comme ni ñu taxawee woon fii sànq joxante loxo rek jóg dem suñu yoon rek defe naa ne mu mat sekk waaye jataay bii ñaari aspect bu njëkk bi mooy joxe nañ fi sànq ay carte artisan carte yi bëri na mënuñu joxe lépp waaye suñu jataay bi jataay politique gannaaw jataay politique la nag mënuñu ñëw ba bente yi te gërëmuñu suñu responsable yi ci fekk yàlla dogal na Mamadou Ndione yombal na leen liggéey bi moom Abdourahmane Niang ndax ñun ñaar ñoo bokk APR ak ñoom Maymouna ak yeneen responsable APR yi fi nekk waaye ñun dañu war APR ba mu moo ko rumbax ba mel ni sumbu fas jël comme ni ko si benn jamono woye wa sumbu fas jël affaire dañ ko wal ba mu mokk liggéey ko fexe ba ba ñuy dem parrainage ñu xar ci suñu tànk tubay ba déposer plus de 70 pour cent des parrains du président Macky Sall en 2019 foofu la kilifteefu Benno Bokk Yaakaar fii ci commune leeree il a yomb yi ñu teg ci neen mooy li am suñu commune c'est une exception mooy réglé nañu ñun APR au niveau de Benno réglé nañu au niveau des populations mais yaatal nañu bay parti yu bëri ont xamante ne retrouvé wu nañu autour de cette coalition ànd bi ñu am wane ko bëccëgu ndar kam est-ce que dégg nga bu ngeen ci commune Diass kenn ku ko wane gars yi nag ñu réunion 5 heures du matin Il man bu ñuy réunion de 5 heures du matin xanaa julli fajar tëddiwaat ma ci des ñun de réunion ba heure may wax aussi abdourahman junj ndax syndicaliste la suñu ànd bi am ñu mu dul arrangé am na ci ñoo xam ne mais c'est la personne de Mamadou qui les dérange

message boobu rek laa leen di lancé ñoom ñooñu di leen xamal ne ñun dañu sincère dans notre compagnonnage avec le président de la République dañu sincère dans notre engagement pour la commune de dañu sincère ci li ñuy def na li ñuy def dañ ci jaamu yàlla pour suñu commune pour suñu dëkk defuñu politique pour mu tur wala pour mu teranga dañuy def politique pour mottali suñu jaamu yàlla ba tax na ñooñu nga xamante ni dëkkuñu commune yi Diass waaye bëgg nañu suuxlu ci élection Diass dama leen bëgg a xamal ne leen bu sikkim yëpp lakkandooyee na ku nekk fay sa sikkim sikkim yëpp lakkandoo amul kenn ku mën a ñëw taxaw tey ne la ci département laa bokk wala ci région naan maa yor kàddu président de la république wala maa yor kàddu Benno Bokk Yaakaar ci département ba élection yi ñu président de la république ak conférence des leaders de Benno la ñuy def wax nañ ko bind nañ ko les choix au niveau des localités seront modifiés eh ay lisez ku déggul tubaab ku déggul tubaab ma waxal lire la déclaration de la conférence des leaders les deux derniers paragraphes dañu les choix seront des choix objectifs et motivé motivé nag bu ñu wax mathématicien la ñuy waxal la la motivation la justification elle est d'abord mathématique Et mathématiquement on va gagner ces élections à 80% ici dans cette am na ñoo xamante ne bësatuñu de daxaar bu sax ñaari yoon am na ñoo xamante day am boo xewoon xew yi xam ne xew yi ba léegi nag dama leen di junj ñooñu ndax junj na borom xel waaye nag ku xamul buur saay boo dëgëree bopp tuuti dinaa la wax buur kadaabare na waaye daf ne ma gars yi dañ leen bàyyi ci biir effectivement dañ leen di bàyyi ci biir ndax président la république bi muy dem élection 2019 juróomi nit la jël ne leen yeneen samay porte-parole Sénégal ba mu yëngoo jamono yooyu passé au mois de mars am na ñoo xamante ne même seen biir nekk ñemewuñu fa woon joxe seen xalaat am na wala amul waaw ku ànd njiitu réew teel a saa nit nga gëm. man de ba may jël sama oto di dem ci plateau yi di défendre le Sénégal di défendre le président de la République di défendre la République ana ñooñu où est-ce qu'ils étaient am na ci tax ñenn ñoo xamante ni xëj na li leen naqari xam naa ndax ñenn ñi dama leen njëkk dégg DG ñenn ñi dañ defe nañ ñoo ma ëpp mérite politique te yàlla xam ne ëpp ñu mérite politique moo tax ñooñu laa bëgg ñu def seen bopp ne fii jas mokk na lu ndax lii ñu am ñoom amuñu ko dans commune kon na ku nekk yem sa commune man duguma commune kenn li ki def ñu liggéey bi ci war ndax y' a pas mieux informé chef d' état y' a pas mieux la république message bu ndaw laa doon yokk ci loolu.